fekkee may nelaw waaye waaye waaye yéema normal ngay toog ci sama boobu. kon moo la ñeme bii ñeme ci kër gi. man kay xam naa ni yaa ma ñeme nii. ku loolu ak mais fi nga toog nii ah ci sama butéeru awa yi nga toog. mu lay mais sinon. sant. kon damaa tëdd par boot départ. booy tëdd doo ñëw ci fekk ma fa. non te pourtant dama doon demandé ko ci téléphone bi doon kii ba yàgg rek xoolal départ. toog naa ba sonn gisuma kenn ma génn. mais nii wa ah, man de wax dëgg yàlla rëccu ma de ma la takkee moom. waxal waay. oh papa ba ma la takkee ba léegi moom dama leer nañ sama xewal tijjee ko umu ma benn yoon. gën a leer. say xewal du ubbeeku. ñu uh-huh. jëm ca kanam. avant moo lay takk doon nañ ma wax. takkal jabar takkal jabar di nga ubbeeku xewal gi day yaatu. <laughs> maanaam déet gars yi dañuy wax rek. man maa indaale xéewal gi damaa ñëw rek indi xéewal. waaw yaa ko indaale de. man lépp dama ko waxoon. Mhm. damaa bëgg a dem damaa bëgg dem suñu kër seet sama yaay damaa bëgg nga may fukki junni doom bu subaa ma xëyee ma dem. mais loolu dina te nag xam nga nooy def doo bàyyi ba fin du mois fin bu ko defee ma am lu ma si dem bi mu laajee na la dem seen kër danga koo jox xaalis ba mu ngi noonu di programme pour dem man xaaruma fin nga boo fekkee da moom mu dem ah c'est pas évident loolu du baax. moom seen kër a ngi nii bu demee bu ngoonee. bu fekkee dafa dem nga dem de du neex. Hmm. dafay def ndànk rek fendi eh. mois bi bu kiiwee ma jox la. man ma fendi kon man bu ma mere waay bàyyi li ngay def man yow laa gëm da ngay d' ma toog c' est que man yow laa bëgg. Ah. yaay sama roulement. yaa may roulé. léegi bu subaa nga jox ma fukki junni. subaa kay dinaa ñëw. fexeel guddi gi neex rek bu ma may dara de. xam nga man damaa yàqu. ancien commando la. wax ko ci kaw. ancien commando moom na damaa bëgg nga may bépti bépti ni nga ma comme d'habitude rek. bu ma may dara yaa xam. waaw. baax na dama lu la neex. moom rek la ñuy def maa yow. waaw man moom wax dëgg yàlla damaa ne koo xam ne. waa Sokone yéen a ngi toog. ñu ngi toog de. yéen ngi daaj. waaw waaw toog waxtaan. jéeg jàpp. wax lii. kontaan ah, naa waaw jëm. Ah, dama am bu xonk am bu ñuul loolu saf ma am bu xonk am bu ñuul loolu saf ma xam nga àddina lépp mixage la da ngay mixé que doo jël lépp def ko noir da ngay jël rouge boole ko noir hmm? loolu la yow nii ngay def nii dama ko man wax dëgg yàlla boo doon douze douze pions gañe naa ñu ne nii moom gaañ naa fépp. ñëw. maa la wax lii. yow laa gëm. mais yow yow loo doon def yow yaa da ngay da ngay préparé xanaa. waaw damay doon préparé pour dem. ah yow dem wax dëgg la moom sa préparation eh. ah, am na doole de. gis ngeen. ah nii nga def. bëgg rek nga pajal bi nag nañ ko moytu pajal bi bëgguma ko. am na damaa bëgg seen ween nii ngeen koy dugal ci biir. ndax ween dafa sensible. yii kenn waru koo namp ko dul man. voilà parce que am na loo xam ne. bëgguma muy génn voilà yow tamit non den fat dégg nga tere naa la ko ba sonn mais yow da ngaa agressif da ngaa agressif. dee ma wàññi rek. non non non non non yow moom da ngaa agressif. dee ma wàññi ci kanamam rek. non non wàññiwuma la sax. ah mi daal moom wàññiwul loxo bay def fi mu ne yaa may par benn. de daggatewuma ko daggatewuma ko ndax yéen ñaar laa am. ah tamit. góor de du jeex bu ngeen defee nii xam nga. waaw ma teg leen ci yoon ndax borom kër day waxtaan ak jabaram. góor de du jéng rek laa ci mooy yoon. ay góor góor bu jéng rek la am de. non jéngu ma. Ah, xoolal wuy ñaar yéen ñaar ñëpp laa boole yamale. foofu ni ngay def kontaan naa ci ndax sama micro bi ngay jël di ci woy kontaan naa ci loolu yow tamit kazaalika noonu ndax sama micro bi da koy jël naan ay mu neex bay bugg a dee ma kontaan. man damaa bëgg nijaay booy wax nga wax sama wax man donc bu ma boolee te keneen wax. non salaamaaleykum. ah j'espère que yow yaay papa yi toog papa laa soxla woo. dafay toog dafa génn nekkul si. nekkul. lan moo koy. Ah, de moo ñëw sama atelier. Mhm. jël fa ñawu gouverneur ak ñawu péré. <laughs> ñawu gouverneur ak ñawu péré. càcc ko ñaw yi fa gën a rafet. sëñ ba amati na nag. <laughs> ah xam nga dooy def. Ah. Hmm? papaam sàcc la moom sàcc dindal ko pelenti yóbbu ko police. foo demee premier arrondissement rasinam ba nga tëj ko. Hmm. nga tëj ko moo yoon. lenn dinaa la ko xamal. Hmm. gis nga boo nekkee di maslaa. dara doo ko jot. demal police. nga def sa plainte eh. ñëw indil ko indi ko jox ko maa ko jox ko papaay mu yoon eh, eh, eh, man tamit laa dégg de waaw kii moo ñëw ne sa doom moo dem atelier wam ah. toj fa ay ñëw ah. ma ne na ko yóbbu police sëñ bi ça va si jàmm ça va mais toq lu la defati toq moo ñëw sama atelier ah. jël fa ñaw préfet ak ñaw gouverneur xam ne ñaw yoo xam ne mu ngi jaar ba ci huit cent Eh, waaw toog ci kat dina ma gàcce de. <laughs> yéen ci gàcce ngeen dëkk ci da nga fàtte loolu. gàcce rek ngeen moom sàcc nga kay. eh waaye eh. baax dinaa la ko xamal gis nga ko nii ak muy maslaat di capar boo ko toppee yow la ñuy tëj làmmiñ wee neex. sàcc la nag moom sax sàcc la. ko wàññi. huit maa ngi dem ñëwaat waaye ni nga ma koy fayee du si sa xol xam naa ne. Eh. ak mu koy fay jaarata rek kàr gi. eh <laughs> ni kii boo ko xoolee sadik xam ne kii sadik la bis dara mais sàcc naka ku ne ci yow moom maa ngi lay sant di la gërëm. mbete ku ne xew. gis nga boo meloon meloon ni ñenn ñu fi njëkk a ñëw xam naa ni moom du baax dara waaye maa ngi lay sant di la gërëm. waaye yéen moom. xam naa da ngeen ñoo bañ rek. déedéet. da ngeen ñoo bañ. ñoo bañuñu leen de seen jikko seen jikko moo rafetul. waaye yàlla baax na. yàlla baax na ay saytaane ngeen. cim. xool ko muy mel ni penku. kon kii ni boo ko xoolee nga xam ne comme karo karo karo douce yooyu karo douce lay nuroo. nijaay kii penku lay wow. man kii rek laa bañ. ma ko mënoon a rey rey naa. ñëw daal nii lañ ko bëgg a jàppoo. waaye nag dina neex de. amul jabar di sañ. Hmm. doom ji di nijaay na su ko sedd tëyër bi moom laay wëri bu fu mu ko mën a gisee. Mhm. dinaa ko puus di ko puus bu ko yóbbul police sax man ma yóbbu ko police tajul ko ko. mooy yoon moo yoon ah, yow wuy ma yow da ngaa demoon da ngay dem. damay dem sax waaw fi nga doon dem da nga koo bàyyi wala. bàyyi moo ko de damay dem. waaw dama bu ko defee après man dinaa la woo. waaw nga woo dégg nga. maa ngi bàyyi ñëw de. sa pàccal bi sa pàccal bi nga dugal ko. sa pàccal bi waaw. lii bëgguma ko bëgguma ko bi ci biir. man de xam naa lenn war na koo ah. nga saa yu ma toogee yow doogam bu nga di ma suufee ci kanamam te xam nga man bëgguma yooyu. non non non non Seydou Diop kay waxoon na dëgg xam nga euh, géwél bi dafa teg ci tamam ne tàggu ko sa jabar jàggul buur ah jàggul buur gi ak jàggu ko sa jabar ni moom mais boo gisee may def loolu dama bëgg mu xaw a euh, yëg boppam ci sëy xam nga tey jii bu toogee kii boo wàcce ko day xaw a kii mais léeg-léeg nga date bee war a jeex nag dafa set mu dem. non déedéet déedéet déedéet xam nga nag kii mbir laa ko jigéen ñi. mën naa dëkkee mi naa. moom mi naa daa ko def. léegi xam nga nu ñuy def kan dem ci néeg ba def lambi golo. mu def ci lambi golo. nan de. eh, eh lambi golo ko